Papa Sow Papa Sow nag ku ne gis na li mu jóge dimanche digganteem ak Siteu loolu nag tey moo tax mu woo fi presse bi fas yéene waxtaan ak presse bi ci benn conférence de presse boo xam ne nii xam nga ah pël ma dindi ma ma dindi saag bi pël wax na dëgg sa sa professionnel moo gën a normal Papa dafa war a jëm ci benn conférence de presse boo xam ne dafa bëgg wax ak sénégalais yi wax ak ay mbokkam wax ak ay supporteram wax amateuru làmb yi ci lu jëm ci li amoon dimanche parce que boobu ba tey yaakaar naa dégguñu ko mu wax normalement comme nuñ ko doon xaare tey nag defe naa ne presse baa ngi nii papa ngi nii moom dañ koy bàyyee kàddu gi papa ñu ngi lay nuyu di la jaar di la wax ne presse bi ñëw nañu wuyu si la et puis di la massaw di massaw sa adversaire di massaw amateuru làmb yépp ah, ak képp ku bëgg làmb waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi nuyu ku nekk si tur ak sant rawatina waa presse bi di nuyu ñi nga xamante ne ñu ngi toog seen ay télé di ñu seetaan mel ko internet yeeg ñëpp ñu ngi nuyu ku nekk si tur ak sant jaajëfal ñëpp quoi waaw papa euh, defe naa tey boo wootee conférence de presse presse baa ngi ñëw toog nga jóge ci sa combat ak Siteu combat boo xam ne def na ñaari at ak ay weer ngeen di ko préparé Sénégal yëpp di ko xaar ñëpp di ko xaar ñu ñëw kër arène nationale macha allah stade bi yëngutul lool ku ci ne ci yéen ñaari mbër yi ngeen pare woon ngir bëri. ñu dem ba bëre kese des ngeen war a bëri yàlla indi ndog-ndog. Mm-hmm. ndog-ndog bi dal ci sa kaw maanaam nga jël benn blessure boo xam ne. obli maanaam tax na mënatoo woon a continuer continuer bëre bi ba médecin bi jàpp ne lii mënatul ne nga jaare fa ñu bi combat ba jeex après bi mu jeexee nag am na yeneen yu ci topp ak yu ci topp bés boobu loo mën a net li sénégalais yi tey ci li nga dund kera ci bésu làmb jooju ba xaañu xaañu bi yegg si sa kaw waa ñu ngi jaajëfal ñëpp rek di di masuwaat ñëpp di masuw sama bopp di masuwu ñëpp ndax euh, mbër mu signé contrat bëri moo tax nga signé contrat di ku bëri aussi ndam moo taxoon moo taxoon jub daal li am nag man bugguma ko rafetlu ma ko ñaane ma koon yàlla ni dama sañoon dañuy ñëw ñëpp bëree yàlla dafa ñu ndam ku nekk ñibbi sa kër ci ak ah jàmm ak salaam moo ñu taxoon jóg waaye li xew foofu ku ne gis na ko yàlla xam doy na quoi suñu ñeneen daal moo doon ñu livrer un combat boo xamante ni. waaw ku ci question tamit gars yi ah. mhm. léegi da nga xaañ. waaw la dóor dara ci li ñu gis ci ay image mooy benn mbir bi fi ñu jàpp ne fi la mbir ma jóge waa da xool caméra yi voilà wala ma def nii fi mbir mi jógee mooy maanaam ci li ñu mën a jàpp mooy sarax bu nga xam ne da doon génn góor a soog doon ko yóbbu bokk ci ñi nga àndaloon bi mu koy yóbbu ñu gis ne dañ ko wàññi police yi andi ko nga jël sarax bi dem yow di ko yóbbu bi nga koy yóbbu ñu gis si imaginer que da nga mel ni ci biir géwél yi sa tag nga jaar bi nga fa jaaree loxo jóg bi loxo jógee nag ci la li am am papa mën na nettaliwaat seen bi ni mu demee ak est-ce que papa xam na ki ko dóor li ko dal waaw bon buñ commencé ñëwee ci làmb jeeg day yomb Mm-hmm. ndax avant làmb dafa am lu ko jiitu lu jiitu comme ko jiitu yoo xamante ni yaakaar naa boobu presse bi yéen ñëpp a ngi foon mm-hmm. ñu ngi commencé marche Ndiaye mm-hmm. waaw waaw marche Ndiaye lañ commencé ñëwee ku ne gis na Siteu sotti na ma ndox saaga na ma bu na ma ma li ma waroon nag moom bind naa CNG correspondance jox nañ ñu war nañ euh, jot nañ lettre mais amul benn suivi yooyu nag lu jur lii ci la topp ñëwaat nañ Iba Mar moom ay coow yu ndaw ndaw boobu léegi ay coow ndaw ndaan ba keroog lii mën a am li man am nag mooy man du ma du ma du jël kii bi rek teg ko ci benn loosu nit dama koy teg ci ñi ko sequl ñëpp ndax lu amul organisation rek baaxul. ndax man bi ma ñëwee wax ma la bi ma de ma déparé fii bañ dugg Pikine ba romb premier rond bi deuxième rompoint bi lañ gëj am jàmm mënoon naa ba a dugg si stade bi booy comme ay kaña la ñuy def normalement normalement euh, organisation moo na nekk ba de telle sorte bu ñu déparé fii war ñoon xaar police parcelle police parcelle certes ñooñu couvrir ñu mais. ki organiser làmbam war na mën ne gars yi dañuy jëli poisson këram accompagner ko ba muy dugg stade foofu am nañ fa presque une temps yoo xamante nii doo xam fu xeeri jóge yàlla ñu dimbal rek ñu dugg mën a livrer combat bi dugg see aussi ma ñëw naa fekk naa si da teg ci ñu ne ma fii ngay toog ma teg samay bagage ma teg ma tegee suma ay bagage li ma di ko def mooy dama buggoon dox tàllal ba ne la ñëwaat ma doxee même pas 7 mètres barrière jàll ak policier wax dëgg yàlla gentiment poliment ñu ne ah, ñu ne doo jot ndigal ne waroo traversé fii ma ndax la ñu ne ma ay géwél si te ñooy tëgg yoo toog fee ne dañuy bañ danger ok anyway kenn gisaat moom ma romb foofu ba keroog ma war a tuus ci laa traversé dem tuus bi ma ñëwaatee dem loo fa yóbbuwaat mooy bi grand combat di suñu grand combat am sarax bu ma war yóbbu ko jox micro central bi ak tambour major central bi ma yónni góor a soog ko yóbbu ma affaire bi nga joxal ma ko diw ak diw bi mu demee jox ko diw ak diw moo dem ba foofu noonu bi muy ñëw waa ji kar na ko man maa maa ngi échauffé boobu maa ngi échauffé gis naa ko waa ji kar na ko non seulement tamit policier tamit il faut tamit bu ñëwee fekk coow rek bu ñëw rek patam patam patam patam booy doo góor soog ay coup booy doo doon góor soog ay coup saax saaxe ko policier yi ñëw liggante ko man comme que maa am sama combat maa am sama bés ma dem jël sarax bi di yóbbu mais bi may booy jub si nit nit ku war a nit ku bëgg a def nit ku bëgg a def jàmm boo ko jub see nga xam ne kii da may wala du la may mais bu ma jub see jiili rek xam naa ne kii dafa jub pour attaquer ma mais tamit man mënuma moom suma bés moom suma couloir jiili na ma benn kun tuuti na ma doo jaar fii xalaatuma ko sax Siteu sax bu nu moon doo jaar foofu noonu te muy suma couloir dama fay jaar par force waxtu ma ak ay bàyyi jiili yoo xamante ni bokkuñ bokkuñ defuñu dara ci làmba ma ñëw traversé gis naa ne mu jugum départ na bu ma jël di attaqué am lu ma sànni keneen ki bi muy tuus bi euh, beneen waaj tamit di sànni sabar bi mooy loolu heureusement yàlla daal moo si def ndax yi yi yan woon yëpp pour ko bi góor sax arrêté bi franc arrêté bu daloon ci man heure bi waxatul ko kon ñuy wax leneen comprendre nga mais nag dafa am loo xamante ni yëfu maa tey da cee am ba mu ëpp ba mu ëpp ndax réew dem ku ne mën nga réew ku ne mën ngaa réew ba tey bu dajee fu ay nit dajee ñu wane lu mu rafet rafet sax deux heures temps trois heures temps ñu wane tuuti yar rek ba ñibbi suñu ay kër affaire bi noonu la demee sama couloir la man maa bàyyi bàyyi ji li toog fa su ma neexoon dama naan doo fi toog mais amul problème si te mën a ba cinq cinq ñaata yoon kenn wax ko dara ñoom ñu ne fii doo fi pour lan fu ñu ko teg ci xama dégg réewante rek mais ñëpp mën a réew amu leen ñëpp mën a réew. maanaam tey boo doon joxee ci organisation ñan nga koy jox ndax tey fi bàyyi ji di toog. waaw faa toog. waaw fi bàyyi dem ba toog waru faa toog. waaw bi booy joxe ko tey waaw CNG am na faute mais tamit CNG ñun dañuy rafet jot comme quoi que ñi ñi ñu bàyyi fi ñu toog ay nit lañu ñoom xam naa CNG tamit bi ñuy bàyyi fi ñu toog dañu yàpp dinañ yaakaar ni ay nit ay doomu aadama ay ñu conscient ñoo toog ñoo xamante ni amul problème mm. yow bëre woo bëre waa doo musoo bëre musoo def nangam yow bu amee promotion bay ut ut ko si sabar bi wala si sa micro bi comme ni ko bàyyi démb amee pagaay mbay am ko keneen am ko papa jaay coppe rek keneen mais kenn xamul loolu benn promotion nga am pour Siteu ñëw bu Siteu waree ñëw nag yaa gën a sañ Siteu sol drap boo xamante ne nii Sénégal xaj nañ ci amul sens maa booy boo bëggee promotion da nga koy ut da nga koy utal sa bopp Siteu moo xewle yow xewle woo Siteu moo xewle moom xewle woo promotion am na euh, euh, ko utal bopp. war a gérer ndax euh, yàgg na ci làmb te ñooñu di wax papa waru jaar fii ñooñu loolu wax ji amoon dimanche mooy wax bi nit war a wax. wax ji amoon dimanche ñu koy jël comme ça ci Modou Mbaye Modou Mbaye nekk ko xamante ne ni dañ ko estimé ndax papam daf fay liggéey lu war nit ñu bëgg ko papam daf fay liggéey El Hadj Bécaye lu war nit ñi war a téye Modou Mbaye mais euh, recto verso bi mu def ni man xaaruma koon ci moom te it rafetlu ma ko ay Papa Sow warul jaar fi def ne te nga nekkoon ci biir stade xam li xew ci stade li nga war a wax dimanche ñëpp ne lii mooy yoon ñi sore ak jege ñëpp mardi nga ñëw nga changé carrément Papa Sow moo war a def nii moo attaqué nangam moo def nangam non Modou Mbaye mu ne a yow suma rax nga yow ku la yéene laa ku respecté laa mais sa wax wax bi nga wax Bantamba tegoo ko fenn tegoo ko fenn ndax yow loo mën a am ci la àdduna sa maaj moo la ko may Siteu mënu la ko may Modou Lo mënu la ko may Papa Sow mënu la ko may sa métier nga nekk fexeel sa métier bi nag jaamu ci yàlla da nga ciy jaamu yàlla ni ko sa papa defee ba àdduna yëpp bëgg ko moom fa laa lay teg ndax li nga wax nii moom du luy du luy du luy du luy rafetal te aussi du luy defar fi nga sa man ma hmm? waar jaar foofu man ma man mi am bës man kay man maa wax naan bàyyi ji li mën na ma miine fii mën na ma sotti nangam ma def nangam ma ne ko bàyyi ji li toogal ak jàmm hmm. man li may réglé si géew bi laa koy réglé na toog foofu mu mënoon am surtout sax bu ko neexoon muy baagante foofu amul problème hmm. mais ñun li ñu doon xaar ci ñoom mooy ñu toog nekk ay nit bu leen mën a romb ñu romb leen va et vient amul problème. ñu door waaw. boobu sa moom waaw moom man xaw ma lu ma dóor parce que kun dóor nga ne def toog mooy jël nga ko jël boo xamul lu lay dóor tey affaire bi ñaari coup la am na bu njëkk ñëw boo xoolee xaw ma xeer lu xaw moo daanu samay tànk waa ji sol noir blanc bi muy ñëw ni fekk na maa ngi liis boobu maa ngi liis dal na ma seet nag mais effet bi xam naa lu bari noonu mais bi ma njëkk a dal moom mooy bi ma tourné nii bi bàyyi ji li mel ne luy daw ba tourné waat ci laa jël benn coup boo xamante ne nii xaw ma xeer la xaw ma ban objet la boo xoolee samay suuf tànk mi ngi fay wàcc ko keneen ki ñëw jot jekkali yeneen ñaari bi ñu ñëw kii franc moo téye kenn ki góor soog moo téye kenn ki yàlla def ci sutura mais nag mooy loolu waaw. waaw mais man xam nga mënu ma préparer sama combat boobu ba léegi man sama yéene woon mooy keroog ma ñibbi si ak ndam gisuma woon leneen lu dul victoire ndax it bon nit ki li nga liggéey rek moo la yóbbu fi nga jëm. mais ñu buñ simee Siteu Siteu lu mu fi indi maas ak biir bu rëy ak ay ween Siteu loolu la fi indi da tuuti woon mu ñëw yokk maas indi ay ween ak biir boo xamante ne mu ngi fi toll. da ngaa tegal piège mu ñëw dal dafa entraîné du mu gëm rek la entraîné man toujours sama man sama ligne laay toujours. entraîné li ma entraîné damay entraîné am doole ñëw bëre ak moom. léegi waaw mais bon ñun dañoo nekk ak suñu ay kilifa ñu toog waxtaan. def li ñu war a def teg ko fi ñu ko war teg te it bon pour man pour man man man avant maa jóg ak suma ay mbokk promoteur dafa tëgg làmb bu tëggee làmb dafa jaay ay billets jaay PPV ut ay sponsor am defe naa ne moom bu journée mi yàqoo moom moo war a njëkk a saisir procureur moom ndax dafa dafa lekk ay alalu jàmbur mais war ñu xaar Papa Sow sax di saisir auto saisir pour mën a diw ma ma gaañ ak diw ma gaañ ci porte plainte quoi est-ce comprendre nga. pour man promoteur bi en personne. alaaji mbiru ok pour man promoteur bi si boppam dafa am àq ak yelleef boo xamante ne da ko ameel ak ay client mooy ñi mu jaay ñi mu jaay billet ñi mu jaay PPV ak sponsor bi ko jox xaalis moom en personne dafa doon bind plainte am déposé ko promoteur bi CNG bi en personne convoqué ki def loolu tamit def def ko ay daanam te bokk ak man sama man li ma war a def man. combat bi dañuy nekk gum ci li ñu toll gum li ñu gum mooy loo nekk ci problème boo xamante ni ñu jóg ak yéeg a wàcc ñu ngi yéeg a wàcc CNG woo nañu amagul xamagul lu mu ñuy wax xamagul lu mu fay jëlee wala tax instant bii daal ñu ngi. ndax sant wér ci combat parce que gis nañu def ay sorties. Mhm. ay mag sa du ko dal. commentaire yooyu moo ñëwaat foofu ba tey waxu Modou Mbaye moo ñëwaat foofu. mais waaw waaw parce que man pourtant ñi ma àndal nag ñi ma àndal wax dëgg yàlla ñu mature lañu. ñu mature lañu nit ay kilifa lañu ay responsable laa àndal ñu teg ma ci yoon na ma ànd man bu doon sax dañu ma gis ci làmb ji may fër fër yi mel ne picc bu xamul fu mu jëm mais au calme toujours au calme ñu ma gis fi mu war a yem laa yem gérer fi mu war a gérer bu dee ci wàllu woowu ñoom bu ñu defaatee tuuti euh, ci ginnaaw mbéygéey mbéygéey bëri na arène sénégalaise kay na toj am na wala amul écurie Fass sa bokk noonu euh, Balla Beye numéro 2 ak Moustapha Gueye seen làmb seen làmb toj na fee Demba Diop Ousa ba Ousa Jules Balde seen làmb toj na Iba Mar Diop kàdd gi seen làmb toj na Iba Mar Diop mais du loolu Fass nag ay ndaana fa nekk ñu ma respecté lañu ñoo xamante ne dama ànd ak ñoom pendant des années et des années dama judd sax fekk ñuy ànd ñu respecté la ñu mais wax jooju noonu boo ko bëggee analyser da ngay da am lu muy indi. Mm-hmm. te toujours rek Modou mbay moo indiwaat loolu yëpp te loolu loolu amul fa wàll. koo mënti àndaloon ci àdduna dafa am ñoo xam dañoo mal intentionné bu luñ def dañ koy def yow mënoo si dara bu doon maa uti coow li ñu mën a wax mais coow li dafa am ñoo xam ne ñoo ko ut si. Mm-hmm. loolu lay coow li mais du ay càgginu Fass ak ay càgginu Géejawaay wala Pikine non non ay ay. wóyu lu ay microbe yoo xamante ne kenn xamul lu ñu doon ñu dugg ci biir làmb ji bëgg ko yàq amul leneen. Hmm. moom bu nekkee foofu sa voie la comme nga ko waxee sax. Hmm. ndax xam nga xam nga làmb regret moom mën na ci am ndax ku sañoon di bëri di nga livré combat di nga ndax ñuy bàyyi seen i yëpp toog seen kër gi seetaan ak ñu bàyyi seen cee ñëw ba stade ak risque fam yëpp di seetaan ku sañoon nag di nga bëri bi di nga bëri combat bi mais regret bi ma ci am rek mooy bon maa ngi masawul nit ñi ci loolu mais tamit sarax ak misti dafa bokk ci làmb dafa bokk ci làmb loolu boo ko deful woon ñu tere la ko def rek mën na la empêcher nga concentré wu ci biir bi yaag Siteu sarax bi defal ñu ko avant avant grand bi loolu da ko war a def dama koy def boo maatoon suba ma war ko dama koy def xëy na ñoom bu subaa bu paasoo waree jaar foofu dinañ ko bàyyi mais man sarax man làmb ji ku ne gis na ni eh, mais nag mu ñu bàyyi Siteu mel ne mel ne benn ci làmb ji rek fu ko neex dem lu ko neex def man Papa Sow ñu si benn coin ma mel ne benn malfaiteur boo xamante ne nii waaye du ma ko du ma ko nangu nag il faut nit ñi bàyyi ma libre tuuti aussi waaye. papa papa dañoo jël bàyyi ji. waaw moom gis image yi naa la man bu ma jub ma jëlee sarax ba jub si xam naa ne kim kii nii ñoom. wallahi azim xooleen image bi am na waa joo xamante ne bu ma séenee may ñëw rek bi waa jël jële kii moom ci armé na ba pare taxaw nga xam ne ko nii dañuy attaqué mais man su ma xasee dem damay dem bu doon ay gis moo fa nekk sax dañuy dugg ci romb bu dem hmm. waaw. beneen mooy nan nga si tam euh, ko. ñu hmm. dégg ko mu ne yow da ko bett benn mooy kon ñëw na si kan yow pare woo. Hmm. ndax tey ngeen jëflante woon ci digg géew moo gën ngay jëflante ñoo xam te ni. bokkuñu ci làmb tey yow communication si tam. est que xaaroon nga ko waaw man rafetlu ma ko bu doon lii da ko arrivé non seulement ku ko def kon ci may mbokk dinañ jote dootul ànd ak man làmb 1 su mbokk ko def ko pare naa ànd ak man ci làmb 1 te it bu làmb ay nit ak nit ñu séq deret doy noonu mën a tuuri ci géew yëngu mën taxaw di si naan da ngay sottee ko segaat te xam nga ni làmb dootul am Siteu ku xool na mu doon feccee track track bu mu am ak keroog bu mu xamee ni làmb ji jeex na du am wute na ñi xam nit xam na ñu bëri xool nañ ne ute na quoi nga xam ne lii ute na ndax mënoo ànd ak nit mu am gaañu gaañu bu doy noonu ngay mën sotteeku taxaw naan ay tàppet la mënoon na bëre ci mu kaayam la dem ñu gaañ ko mu génnaat déet non may booy du noonu boo ànd seq ak nit ba ak gaañu gaañu am ak lu mënti am masawu ko euh, ñaanal ko mu wér ak jàmm ak salaam man loolu laa doon xaar ci moom mais li mu wax moom wax dëgg yàlla xaaruma ko ci moom en tant que ñaari ñaari frère mhm. ko. waaw muy waaw wax dëgg yàlla bi mu xëyee woon na ma set ma moo def nangam nangam ma ne ko maa ngi sant mbaa garaawul rajo bi lu mu génnee ma ne ko ah alhamdulilah euh, egseegul ah, mais alhamdulilah maa ngi sant bi rajo bi ñëwee aussi tamit affaire bi fi ñu yaakaaroon ni ci biir yàlla mi ngi ci def jàmm daal ba tey maaxee yow nag mooy bopp moo garaaw mbiru bopp kenn xamu ko. waaw mbiri bopp kenn xamu ko mais nag sant yàlla quoi. Euh, papa gis nañ nga dem si médecin bi. Hmm. comme ñëpp nga demee si médecin bi. Hmm. médecin bi de suture wala defal la nga demaat quelques minutes après ñëwaat encore si médecin bi. Hmm. boobu da lay wax ne da nga annulé combat bi wala kenn annulé wu gis nañu aussi bu la médecin bi nee la euh, mënuloo bëre wala boo xamul lu mu la wax. gis nañu ngay xaaju si kanamam di dem ak ñëw. est boobu. nga pare pour bëre. Mhm. wala boobu nga doon foo nit ñi fa nekkoon naan def semblant que nga war a ñëw ci géew pour bëre te yow xam nga ni médecin bi la mënoo mhm. wax naan su démb doon tey mhm. bu yaru la. est ak arène nationale lu mu yaatoo. est waru woon tey nga wiiri jël yoon bu yaatu. mun a sa def sa sarax sans pour nga jaar ci nga xam ni moom la. xam ni même soo nekkulee mbër sax. Mhm. nga nekk personne lambda. Mhm. Euh, euh, tëggkat su xasee ba sam. pour mhm. jaar problème la yow nga nekk mbër nga ne nga jaar sa diggante. pour euh, nekkul def benn scène na. waaw njëkkee njëkkee yi ndax bu doon foofu amul fu ñu mën a jaar ñun groupe bu ñuy tuus fa jaar ñun groupe groupe groupe groupe jaar dafa am couloir bu des ci ginnaaw ñoom fi ñu toogee am na couloir ñoom ñoo leen du ngeen fi jaar nekkul danoo dugg seen biir de il faut gars yi xam loolu ñu nekkul dañoo dugg si biir sabari yi romb noonu la déet ñoom fi ñu teg ci ginnaaw dafa des couloir des na vert foncé ak vert clair des na des na lu ngande mais ñoom ñoo ne doo fi jaar mais Ndeye Coumba loolu loolu kenn kenn waru leen ci bàyyi kenn warul bàyyi géwél géwél bi moom géwél li nga xamante moom bu njëkk defar defar defar la nga xamante moom mais ku jóg pour yàq non dañ la war a xoolaat des nañ ci place place bu ëpp lii li ëpp lii foo xamante ni mën na fa jaar mais dañ ne mais réewante rek doo fi jaar te bu doon jënd yow benn billet ngay jënd yow fi nga taxaw sax nga moom place bi yëpp nga ne doo fi jaar mais kenn mënu ko kenn mënu ko wax bu jëmee ci leen lu jëm noonu ndey kumba keroog ku ma xool xam ne kii dafa ñëw pour bëri si pour bëri si mooy waral rek bi nu waxee Siteu moo toog fee ak nit ñoo toog fee may la nan toog ndax bëgg jàmm bëgg mu jeex ci jàmm bu dara dul dara rek tey bu ñu téye pendant deux ans trois mois rek dafa doy mënoo dem dëj doo dem ngénte ay xew yu bari day am combat bi ñu programme ko da ngay mujjee gëm da dem bu ñu mbokk yi sax danaan ne kii amul yitte wala daf ñoo xeeb xam nga deux ans deux ans nga téye ko benn nit bon man sonnoon naa pour ñu génn ci combat bi nekk ci leneen mais surtout boo gisee <laughs> ay nangam nangam non non mais day Comba combat bi dama ko jël pour gagner maa surtout mënu ma gën a bëgg combat bi surtout mënu ma gën a bëgg combat bi ci àdduna déedéet waaw waaw bi bu njëkk daf may laaj sama avis ma ne ko damay bëre damay bëre damay bëre takkal ma ma bëre coow li bëri coow li bëri ma dem ci mukaay li ñëw ma dem ci mukaay li dërëb a sànniwaat ñu ne ma da ngay ñëwaat médecin moom moo ma wooluwaat médecin bi dafa bëggoon ñëw foofu foofu am ay engouement coow li bëri médecin bi ne du génn ndax fee wóorul indi leen poisson mu ñëwaat ma xoolaat ko bu ñëwee dama xoolaat mu ne ma non affaire bi ba xam nga may gis ma ko maa ngi lay gis kañ maa ngi lay gis ma ne ko bu ñu paree bindal ma ma dem defi scanner loolu rek laa ko boo boo paree fii nga bindal ma ma dem defi scanner mais man dama doon bëre su ma bëroon ba pare daan Siteu ànd ak samay ay bokk dem hôpital faju mais lu tax lu tax ma doon kii noonu bon bi ma toogee di kii dégg Siteu def di yëngal foofu noonu mais tamit mais am na loo xam ne nii non mënul ne. waaw mais xam nga nit ku dóor xam nga maa ngi dégg ñu naan ay Siteu naan dan ma xaañoon ay nangam nangam Siteu xeer bu ñu ko xaañ doyul nii. ma ne maa ngi lay gis kañ maa ngi lay gis ma ne ko bu paree bindal ma ma dem defi scanner rek laa ko boo boo paree fii nga bindal ma ma dem defi scanner mais man dama doon bëre su ma bëroon ba paree daan Siteu ànd ak samay ay mbokk dem hôpital faju mais lu tax lu tax ma doon kii noonu bon bi ma toogee di kii dégg Siteu def di yëngal foofu noonu mais tamit mais am na loo xamante ne nii non ne. waaw mais xam na nit ku dóor xam nga maa ngi dégg ñu naan ay Siteu naan dan ma xaañoon ay nangam nangam Siteu xeer bi ñu ko xaañ doyul nii. de deux lu ci mënti am it bon responsabilité staff bi lay nekk te bu baax li doon wax naan staff bi xale la staff bu cuune boobaa fa lañ leen di balaamee ak lu mënti am boo daanee Siteu naan da ngeen cuune ah bu la Siteu daanee da naan da ngeen cuune lu ci mënti xam loolu la leen wax ay ñi ay cuune leen ay xale lañ xamuñ dara fugg lañ toog xam nañ ne lii Siteu mi doon baax xam ne ne day combat Siteu xam ne ni fii combat mun di fi am war mu firi noonu. Hmm? waaw ñenn ñi moom ñenn ñi boo ko déggee rek mooy fi ñu ñëwaat duñ si ñëwaat man sama sar laay defi ki may ki may jub si noonu xam naa ne kii dafa jub attaque ma yéen a yee vidéo yi taal leen vidéo yi ngeen xool bi ma ñëwee ba jege leen di nga gis waa ju téye sabar avant dara xew arme armée nii nga xam ne kii ñii danoo pare pour sànni ñaar ñu bokkal ak ñu bokkal ak euh, tambour major bi ñaar ñu leer naññ ngeen gis ni kii day kii day bu ma jege see beneen pas mu ñëw mais euh, reculer am na foo xamante ne recul amatu ci. waa mais waaw mais xam nga tey jii bu dee réglement la wax rek règlement rek la wax règlement rek la ñu wax tey bàyyi jii li du amateur accompagnant la mooy ni Siteu Siteu bu ma gaañee ku ma ci gaañ ci ñoom rek au contraire man la ñu wax man la war a jox victoire mais victoire boobu soxlawuma ko. victoire par point Papa Sow lan gaañ Siteu lan gaañ jox victoire yàlla bu ma ko am Siteu boo koy daan dama koy duma daan ko suñu bëroon moo duma ko daan ko waaw. non loolu kay si auto loolu waxatuñ ko mu si procureur bi xanaa que ñu jox ñu boo ñu convocation ka def. Ah, mais ñun Papa man am naa samay mbokk. seen mbokk fi ñu après fi ñuy jaar xam nañ fi ñu war a jaar ñun boobaa di leen ñibbi lu ñu munu xëyee li ñu yoon may dañ koy def mais surtout moo la gën a xam ne munu fi am victoire moo la a xam ne munu am victoire bu doon doo dugg ci géew bi sax samay mbokk def gaañ ma wala nangam nangam mais moom ay mbokkam ñoo ma gaañ koo xamante ne doo jënd ticket da lay compter comme accompagnant surtout moo ma gaañ man su ma doon mbër bu yaafus laa mbër bu bëggul yomb laa fa naan joxe ma victoire mbokk surtout ma gaañ mais soxla ma victoire bu ñuy joxe mais mi ngi waaw mais yéen déglu rek bu ngeen dégloo fii ak fii ak ki fan. dinañ xam ka leen porte plainte mm-hmm. man maa ngi Siteu jotewuñ dara mm-hmm. Siteu. Siteu jotewu maag moom salaamaaleykum wa rahmatulah jotewu wax dëgg yàlla. septembre lañ koy mujj réglé mhm. mais yow sa discours ak discours si de pratiquement discours boo xam ni provocation la maanaam rafetul dund est ce a dugal parce que yow yaa ngi pratiquement ba léegi am pour bu jéem leen si bi na mais bu dee bu dee ci wàllu Siteu man sant ma wax naa wax naa lu déborde sant ma ne wax naa Siteu sant lu déborde non moom dañ ne parewu ma Papa Sow parewul moo tax ma xamal leen ni moom biir bu rëy la indi ak ay ween ndax moom moom wax loolu moo ne Papa parewul moo tax mu doxalee nii yàq boppam may leen lu dul ay ween ak biir bu rëy indiwu ko fa foofu rek laa yam si moom te loolu loolu ñëpp gis ah est euh, waa Fass war na amee est euh, wax dëgg yàlla ay kàddoom lu ñu rafetlu la ndax it bon keroog wax na li nga xamante ne mooy làmb wax ne li war a li war a ne ak lu mu mën a nekkee seetaan naa ko vraiment ma rafetlu ko trop ay kàddoom pour man nag kàddu Moussa Gueye yooyu la ñëpp war a waxee fa la làmb toll. ndax làmb bu ñu am ba dem dem ba am système perpévu làmb di commencé defaat nii ñu bëgg ko yàq. kon sa ah. ak am solo bu amul du neex mais seen comportement la ñuy wax seen comportement du kenn nag comportement sax jiit la ñuy wax comportement ñëw dimanche la ñuy wax mais kenn koo fa gis correct mais ay temps dangay gis sax mais mooy bëre faadal dem si géwélu faadal ñu tëggal ma fecc kafre dem mais ñoo xamante ni ñoom pour ñoom ñoom ñooy star yi moo dul yoon ñoom dun star yi man loolu ma metti ñoom dun star yi Euh, ñu gis ni euh, mhm. wooyee CNG est-ce que am na loo xamante ni verdict boo xamante ni yéen koy xaar mais est-ce que tey ba ngeen demee seen waxtaan ak moom nu mu demee. bon woo nañu CNG bi ñu wooyee CNG aussi tamit dafa am lu xew lu waral lu waral lii moo xew waral li lii ko waral lii ko waral mais am na yenn bëri nu ñu ku ci mel ni ay rërëg ak lépp mais pour man ay rërëg li ñu def lañu war a def lam dafa baaxoo boo dëkkee ci gox mbër moo du bëre rërëg dafa war a ñëw. CNG moom loolu moom li ñu ko jox tekk fay Reug Reug dafa war a ñëw bàqu si li mu li mu def da ko war def caat mbokkam la tout ça loolu amul problème CNG loolu loolu loolu du Thiès déedéet loolu du Thiès Thiès mooy bàyyi jiili fu mu nee ñu woo ko ne ko kaay yow li nga def ndax moom dafa bokk ci làmb li nga def pourtant nga def ko mais comme ay Reug Reug ñu woo ko mu bàyyi entraînement am nekk ci combat nangam nangam non non non non bon reliquat nag boo ko déggee mooy làmb bu amee coow bu tojee nag CNG day day day tranché instant bi dina entendre ñëpp déglu ñëpp après doo ko mën a joxe reliquat yi. reliquat yi moom du lu ñuy wax événement bi moom passé na mais comme que coow dafa am dañuy leen gérer coow li ba pare après ñu jox ku nekk la fa am. li fi xewoon tamit est-ce que doo xew seen diggante. mooy lan euh, <laughs> ah mais si ñoom loolu ñoom la rek. ma ne loolu ñoom la rek Papa Sow du Papa Sow du Papa Sow du du Alioune du Net li ma war a ak promoteur bi def naa ko mu mat sëkk. sëkk sëkk bu ñu fayee bu ñu fayee reliquats ba pare ba CNG pare ñun mu ñëw ñu waxaale komba amul problème ndax combat maag si dafa war a egg dina war a bëre balaa balaa neer bi di toq dina war a bëriwaat incha allah dañuy bëri. ah. bëgg non bëreegunu. non combat yi dafa war a am ndax mu ñu nekk ba bëgg téye nit ñi nit ñi dagg seen ay ticket àq boobu noonu loolu baaxul <laughs> am ñu toog jënd si ay. biir mais xam ne dañ ne keroog lam yi dañ cee xat. xat mooy lan. mbooloo stade bi. waaw est-ce que loolu. Mhm. Euh, tamit man mobilisation bi xam ne da koo def. Mhm. dañ doon mhm. boo xoolee pratiquement. nit li ñu gis dañ ne moom moom mobilisé stade bi yëpp yëpp yëpp tamit nekkul woon loo xam ne tamit pénalisé na papa mhm. ba tax benn moment sax buñ ko biñ ko teree dara mhm. mu gis boppam ba ne léegi moom biñ teree élément parce que mhm. sa élément lañ tere muy góor nga gis sa bopp ba tax ne yow loolu di ko def par dëgg la loolu wax ci dafay yomb trop ñun fii yoo teg ay car car yu bari mooy unité 19 am na ay car trois cent mi ngi doon bëre 10 am na 2 mi ngi doon bëre 18 ay békaay xam nga ñun am nañ mbooloo xam am nañ mbooloo mais am na situation yoo xamante ni booy parcelle bi ma ba làmb ja ñii dinoo ñibbi ñii si jël seen ay seet sor ko tax it ay ñoo neex a nekkal boo gisee bu daan ay site site la nga gis mbooloo mu bari ne nii pat ñëpp ma leen faral war bi si filoon ba dégg waaw gi da naan non lii est ce que waa parcelle yi noo nekkoon ci souterrain yi génn mais am ñoo xamante ne tamit keroog situation yi fa am ak mu manqué tamit manqué vraiment manqué manqué sécurité kenn kenn du jaay sa bakkan bari nañ fa peut-être poissons yi comme comme àdduna mais situation ñoo xamante ni bi ñëw tit ngay sol sort t-shirt ak laafa mais tamit ñooñu seetaan suñu làmb quoi. ci bi am nañ fa une heure ñu mel ni ay kaña. la fa téye maanaam une waaye police moo doyul booy non faale policier yi. li xew si làmb ji gis ngeen policier noo mujj sax dugg ci biir gars yi damm moto jàmbur yi def naa nga m'en fous caaroy ba Pikine magasin yëpp tëj. mais Falang jaar na fi Mbaye Guèye Double Less Tyson Yékini ah Moustapha Guèye ak keneen keneen mais kan moo mës a bëree ko xamante ni kenn du am jàmm mais loolu dafa ñaaw te boo toogee yor micro bi da nga leen di sa aman ñii laa am déedéet amoo ñi te pour man ima cité image am waroon na ko may bu bëriwul sax am ay milliards wala ay millions mais pas comportement bi ah waxuma dafa yàqu de mais daal moom bu bëriwul sax waroon na am xaalis mais pas nii am loo xam ne kenn du ko encouragé am na xam ne kenn du ko encouragé. <laughs> ñaari combat la ñaari ñaari ñaari la sànq combat bi ñaari ñaari ñaari question la njëkk sànq yaa ngi naan bu ñuy bëri man doo bëri ndax man doo moo laf te man <laughs> njëkk mooy ñu ngi lay masaw mhm. ndax gis nañ ne mbër mu yaru la mhm. dëgg yàlla nit ku ne li nga xam nga yow mhm. soo ñëw ci làmb wala ci réewante wala leneen kër yéenu lañ la daal mais que ñu ci yëpp dañ ne bis bi papa sow bisam la est ce que tam li kiy wax sànq rek amul réccu ci gérer waaw wax kii wax na ko nee naa ko am naa tuuti rëccu ci benn côté ne ma sañoon daal gaañu du am mais ni moom ni ñu bëggoon ma reculer ko loolu as gor mënu ko. man su may tëdd combat moo préparé combat boo xoolee damay nekk ci combat bi pour les 3 mois 4 mois rawatina su may tëdd samedi bi a jëm dimanche bi su ma yeewu beneen paaso booy gis moom laay indi ci làmb ji moom laay bëriwaale ba keroog mu jeex ba paaso doog a ñëwaat mais tey tey naa la wax nga war a dem def say sarax. Fadel taxaw ne doo fi jaar waaw dafa métti quoi dafa métti quoi mu leer yow kii ki lay tere nii ki lay tere nii tegu ko fenn furu rek tey fi bakkanam mais du yoon bu ñu war a wax kañ ci loolu la war a revenir aat ne ko bàyyi jiili baalu génneel baalu nit ñi àq loolu la war a def waaw. sama deuxième question mooy. tey combat bi yàgg la bëggatul. parewul pour bëriwaat ak yow yow bi nga xam ne a bëriwaat si parce que dañoo doyloo ci. non boo déggee exemple mooy dama ne la nit ñi dañoo dagg seen ay ticket di am lu ñuy xaar buñ sañoon buñ sañoon dañuy bëri man li ma gënal mooy tey ñu xam fu fu muy mujj. mais moom ci laa am loon fekk may bëre. moom ci laab la am fekk may bëre man utuma pour bëre ak moom mosuma ut pour bëre ak moom bëre ak moom coono gi ngay daj rek jaru ko waxtu ma ak leneen bu utuma pour bëre ak moom mais dama ne comme que nit ñi dañoo am bëgg xom cooki fin ndax bandi cooki fin lay dee te moom bandi la fa la war a deewee dañ ko eggali. est-ce que lu a bokk ci sanction yi naa la man la CNG dañoo yaakaaroon ni. sanction yi da cee war a am parce <laughs> day day non. <laughs> waaw maanaam maanaam CNG bi ñoom jàpp na ni ay nit lañ jox lii ki ne toogal fii nit na ku mat la moo tax ñu bàyyi ko mais bu dul loolu CNG lii dootu ko delaat keneen beneen ku ñëw dana la jël ne la sa da ngay il faut nga xaar ba sa mbër ñëw ba teg ci mu kaayam nga doog a teg sa sa sa sa sa sa ay matériel. fan yi ndax coow loolu mhm. ba tax suñu papa xaalim sàmb ak yeneen génn mhm. tontu leen ay tontu yu metti naan day dañoo war a tëj làmb mhm. parce que làmb ay nit yu nangam ay nit yu nangam làmb est-ce que dañ ko war a tëj ak ñoo ñuy attaqué làmb loolu leen di wax waaw bi ñu xëyee ñaan ñu ko yàlla la xew tëngeej ñu ngi koy massawu ñëpp di jaale ka fa ñàkk ba kanam la xew ci làmb ji bu ñu xëyee pur xew na lu pur am na tëngeej ci football bi lu raw loolu am na ah ak Demba Diop boobu léegi dafa tëj waaw ak géej waay tamit gis naa ko waaw kon du kon làmb rek mais comme que ñun ci làmb la nekk nan wax ci làmb nan waxaat mbër bu ne da nga sensibiliser da da nga sensibiliser nit quoi. Modou Lo Ama Baldé mhm. am na ñoo xam ne dañoo tiit ne mënta na ca mhm. parce que dañoo jàpp ne ñaari mbër yooyu mhm. la ñuy dagaasi ci mbooloo ak mbooloo la ñuy dogal ci seen i mbër buñ ko fa defee bakkan mën na faa war yow d'accord nga def Modou ak Ama xaj ay léegi maanaam lu ne xaj na démb lu ne xaj na arène lu ne xaj na fa mais nit ñi dañ ko xajoo tey jii tey jii Ama Baldé ba nag paaso paaso fii Léopold daan ko dem ñibbi ci jàmm nangam nangam loolu amul problème ñoo ñoom ñoo war a sax dimbali Ama Baldé mu bëri ak Modou Lo ay si waa supporteram Ama Baldé na ci waxtaan na sensibiliser ay supporteram signature contrat ñëw def ko mu neex na mu ngi bëgg a yàgg ñoom boobu ba léegi lu ñu jàpp mu yàqu lu jàpp mu yàqu nañ dimbali ñaari mbër yi ñu ñu livré li ñu war a livré nekk ci leneen quoi. boobaa baax na ci dayo ci daj xaalis bi ci financé. waaw bu mag a mag la combat bu mag la woon wax dëgg yàlla dañ amoon yëpp lan ñu may ak lépp def nañ ko ci. mais rek sant yàlla rek yàlla moom ay programme bi ngi noonu ko taxawaayu mais Franc ni mu taxawee noonu la xale yi parcelles yëpp taxawee ndax maa yaa ngi gis ay obali ñëw nañ fa ñoom booy siin ak ñoom belendeek boo yëpp ñu ngi fa ñëpp wan ma nit ñi ñu sa ginnaaw ma ngi moo tax maa nuyu xale yi parcelles yëpp de A à di ko teg ci loxo roi des arènes mu Modou Lo gis naa taxawaayam vraiment maay booy yow mention spéciale à Modou Lo ak képp ko xam ne nitu Modou Lo nga aussi tamit gis naa sa taxawaay. papa mais bi nga gaañu avant ngay gaañ gis nañ la nga am benn yëngu-yëngu aal bay jooy papa keneen lan lañ la déey parce que papa soo mu dem bay jooy di bëreegul waaw mais li naan mbër xam ak gaal yi ak gaal yi gis nañ <laughs> mais mais di Saam dafa yaatu Ile di Saam dafa yaatu Ile di Saam dafa yaatu am na ay kóllëre. ñun am nañ ay di ñoo xamante ni suñu ay wóor la lañ barasiti di nekk mbër sekk ak ñoom ñu ñu ñaanal diggante pël la ak séeréer. loolu amu ci solo Siteu waa Siteu day dem si ñu mu xam ak ñu ko miin ma dem si ñu ma xam ñu ma miin Siteu day dugg ci pël gi ñu koy jàppale dem saalum saalum comme sama mbokk yi mais loolu amul solo Sénégal yëpp benn la dana am séeréer sëriñu séeréer sëriñu pël sëriñu saraxule sëriñu nangam sëriñu nangam olof ak lépp loolu amul solo ah mais loolu àll rek da nga am instant làmb deret bi day yëngatu rek waa waaw ñi ngi jaajëfal ñëpp di ko teg ci loxo di ko teg ci loxo président bi euh, Mame Père Ba ak jàmbaaru Wrestling Academy yëpp képp koo xam ne tamit yaa ngi taxaw ci ma ginnaaw di ma jàppale maa ngi lay sant rawatina autorité parcelloise maa ngi sant ñëpp ku ci mel ne le maire Moussa Sy ah ñoom Go ah ñoom ah, Moustapha ñoom Mamadou Wan ah Mbathio ah, ah, son excellence monsieur le ministre Amadou Ba maa ngi koy gërëm l'international PAN maa ngi lay gërëm bu baax a baax gis naa taxawaay bi André King borom Dubaay noonu maam Biram Diouf boo limee da ngay jum Desagana Desagana maa ngi lay gërëm bu baax a baax a baax Youssou Ndoye maa ngi lay bigam lu bari gis naa lépp góor gi si Dieng ku di nga juum ku lim di nga juum képp wax xam ne daal jàppale nga rek maa ngi lay sant di la gërëm di jaajëfal ñëpp quoi. waaw waaw Souleymane Mbaye l'international triple champion du monde mention spéciale à <laughs> mais bi nga doon ñëpp ah. ah ah ah ok ok waaye presse bi ñu ngi ñu ngi gërëm presse bi yëpp Gambia borom Gambia.